melokaanu usine bi nga xam ni dafay segal gerte ku ko xool xam ni activité bi doxatul loolu nag terewul ba ñu ngi ci diggu campagne bi nga xam ni ci la ñuy jënd ak jaay gerte kem usine bi nga xam ni dafay segal bëri na yu bëri ñu mel ni moom ñoo xam ni activité bi dafa taxaw ci seen wet li ko waral nag mooy buuse gi nga xam ni dañ ko daan jënd ngir di ko segal jamono ji dafa seer loolu ton bi ñu ngi koy jëndee ñeenti téeméeri junni ak juróom benn seeraay boobu nag du yombal segal dëwlin gi bu njëkk chinois bi kemb bi la daan jënd nga xam ne kemb bi dina amoon prix boo xamante ni dina mën a yóbbaale buuse bi daal mais léegi dafa mel ni chinois bi mooy ni mu doon jëndee kemb bi ni lay jëndee buuse bi moo tax buuse bi semb chinois bi da ciy mën loo xamante ni ñun buñ ko ci defee ñun bu buñ liggéey duñ ci génn gerte gi bu jaroon ba cent 375 buuse bi yaakaar naa ñoom am na nu muy demee ñoom dinañ dinañ xool ñoom nu ñuy jibooy ba mën a liggéey daal bile situation nag dafay tax ba mu am nekkin wu doy waar ci wàllum koom-koom ak it sax mën na laal xëy mi. problème la dëgg-dëgg problème la ak ak fi fi jamono bi toll xale yi di fipp di dem ci géej gi kon heure bi xam nga. lu mu métti métti ak état bi waroon mën a protéger gerte gi pour xale yi mën a gisaat seen bopp ci dëkk bi. parce que chinois bi tamit warutoon na am accès tamit ci ci baykat bi waaw ñun ñi ñëpp mënoon nañoo liggéey mënoon nañoo liggéey chinois bi li mu bëgg mu am ko. état bi li mu bëgg mu am ko gerte gi jeunes yi ci doon dund ñoo bari waxuma la waaye maire yi rek maire yi rek fi ne tey par exemple moo wàcce woon gerte tey boo ñëwoon fii da nga naan fii dara dafay xew tellement que maire yëpp maire kenn ku ci nekk yaa ngi ñëw di tànn di wut loo yóbbu sa kër manœuvre yi yenn ji maanaam bu ñu àggee ci segal bi bidon yi ñuy liggéey nii raxas bidon yi bu ñëwee di wàcce bidon yi jigéen dañ koy xëccoo di raxas di fayeeku parce que fii ñi ci mën a gis seen bopp ñoo bari. ñi nga xam ni dañuy dugal seen loxo ci diwu segal gi ak di ko jaay ñu ngi naqarlu li nga xam ni moom mooy ñàkk politique ci wetu nguur gi. fi nekk di liggéey man dew ma barsax dew ma yàgg naa dem génn dem di Europe dem di ñëw waaye ñu dañuy daan suñ dool dañoo gëm suñu bopp yaa ngi dégg gëm suñu bopp boobu moo tax moo tax ñuy liggéey léegi nag du ñëw ba fii ba jël suñu xaalis jënd si ay terrain miire ko jël ay mbaar defar ko jënd ay machine pour investir liggéey nii may waxee ni jusqu'à aujourd'hui amul amul benn machine bu tàkk ndig lan gerte gi dafa seer léegi gerte gi bu seeree fu ñu ko jëmee koo koy jaay boo ko segalee yaa ngi mën a jaay 14500 beneen diw importé bi mi ngi jar en 4 mi ngi jar en 14250 boo ñëwee duñ ko jënd. ni ñuy jaayee chinois bi gerte gi nii dinañ dem ba problème mu jiw la am ni ñuy jaayee chinois bi gerte gi mooy tax ñuy dem ba jiw bu qualité bi sax ñu ngi koy jaay chinois bi ñi nga xam ni dañoo yor ay entreprise yu ndaw te yëngatu ci wàllum segal gi ñu ngi ku kujje yi nga xamante ni si dafay bàyyeekoo bitim réew jëm ci gerte gi bu loolu weesoo ñu ngi fàttali nguur gi naal bi nga xam ni amoon na ko ngir taxawal ay unité yu ndaw ngir mën a raffiner gerte gi loolu sax dafay tax ba ñu gën a mën a xàmme ñuy dugal seen loxo ci bile secteur te seen lim bari lool